mbokk yi ni teewlu di leen jaajëfal xibaar bu yees mel na ni euh, Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñaan gi mu ñaanal capitaine Touré ca seen ngañ ko seenoon ci kuréel xasaay di ñuy faral di jàng ci weer koor ga ci Touba mujj na nangu ndax tey jii nii ñu ngi leen di xamal ni moom tàbb nañ ko fële na la ca ville de Dakar ville de Dakar mi nga xamante ni Barthélemy Dias moo ko jiite en tant que ki nga xamante ni nag moom mooy yëngu ci wàllu sécurité bi donc il a été euh, par Barthélemy Dias comme comme conseiller euh, sur le plan de la sécurité concernant la ville de Dakar mu di liggéey gu bees gi nga xamante ni nar na ko tàmbali ci collaboration ak ville de Dakar ginnaaw bi nu ko fa jëlee fa neen nga xamante ni moom mooy école IAM te nekkoon na fa professeur ñuy fàttali nag capitaine Touré jamono yi ñu nekk nii nag dafa nekk ci jàmmaarloo goo xamante diggante mag état ci ay jafe-jafe gannaaw bi mu maanaam euh, génne ay mbir ci wàllu dossier Sonko Adji Sarr mi nga xamante ni mi ngi ci loxol yoon ndax ba tey euh, maanaam xamaguñu mbir mi féete